fan ci ginnaaw dafa am euh, benn jigéen benn intellectuel bi benn mot bu amoon lu mu déclaré ni muuraay daal bu exigence bu si diine euh, ban réponse da koy apporté. Euh, comme réponse mooy pend boo xamul diine man ba may jàng département d'islamologie bu université bu Dakar wax na ko sax la fa daan ñëw. moom histoire médiévale la doon la fa daan ñëw di jël lég lég quelques cours di assister euh d'ailleurs bi muy wax fi mu jàngé rek waré na la jàngul parce que néna institut Bourguiba bu Tunisie institut bobu pour initiation la à la langue arabe donc niveau primaire la yoré ci langue arabe koku bu waxé ci diine euh, mbokk yi wax nañ ko légui xamuko euh bu démé ba créer suratul hijab bu amul ci alcorane loolu lépp li muy tekki mooy pend moo xamul diine man dama am anecdote bu ma xam ci pend moo te ñu bari xamuñu ko tudd na ko nee na ay rakam ñoo ko njëkk a bañ a jox loxo moom xam na bu baax li may wax boori fàtte naa exactement année bi mais ça se situe entre 89 1989 90 91 peut-être 92 Penda boobu dafa demoon ci benn daje benn conférence di fa wax yii muy tàmm wax ci lislaam benn xaritu rekkam ku ñuy wax Amadou Thiam mbéj ko euh, bien que lu rafetlu wuñ ko parce que dóor jigéen sax lislaam daf koy tere alors euh, ñu yëgal ñu ko ñu porté ko plainte féministe yi man ak docteur Daoudou Diouf ñu dem fekki El Hadj Abdoul Aziz Sy Dabakh yàlla na yàlla yokk leeram ca jak saaw guddi yëgal ko ko daldi di ne mu woolu papay Penda ba mu ko laajtee am ku ne ko papay Penda day taalu bu sëñ Babacar si la ndax jàkkee sëñ Babacar jii nekk ci boru Rue 22 yàgg na fa ca ña ko doon toppatoo la ci turu sëñ Babacar mu daal di boole ndaw la ak ñun ñun da doon ñibbi si Dakar ne ko demal nga wool ma papay Penda mu ànd Penda ñëw wuyu si ma eh, ba papa ji ñëwee. sëñ Abdou ne d'abord me retirer plainte ba parce que dafa porté woon xale bu plainte euh, pende sax dégg naa ne mujj le retirer plainte bi wayé association féministe yi ko gembol né ko ñun dañuy porter plainte à ta place dal di koy def ba xalé ba ñu mujj ko condamné quand même un mois avec sursis Amadou ci am xarit xaritu rakam la won donc fofu la pende jaar vers ces années ñun booba ñi ngi taxaw di jaamaarloog mom mais pende Euh, wax dëgg yàlla amul xam-xamul lislaam ku nekk xam na ko euh, li muy wax itam euh, dama yaakaar ne ñàkk xam la ko teg mais mi ngi laaj te maa ngi lire hier defe naa ne benn contribution bu mu bind naan dafa dafa jaaxle ak tiit ci réewam ma di ko wax ne ko Penda waroo tiit da ngaa war a dellu si parce que depuis ba muy nekk ndaw bii may wax li may nettali nii booba ñun ñaar ñëpp ndaw lañ man ne naa daan na ma fekk département d'arabe di fa jéem a jàng si yenn cours parce que dafa lié wu ak histoire médiévale bi mu doon travail euh, booba ba léegi mi ngi essayé loo xam ne du jàll mi ngi essayé loo xam ne lëndëm la waaye waaye boo nekkee ca loola booba mënoon naa ko nangul parce que booba gën a nekk ndaw léegi maag moom yëpp gën nañu nekk ma dama yaakaar ne jot na nag mu dellu si ci lislaam na ko rakkam ya doon jéem a delloosee ci lislaam ba tey jii ay rakkam ñoo koy tontu ci lislaam ma foog ne eh, na bàyyi li muy wax eh, féministe yu bari bàyyi na caaxaan yenu nekkoon xam ne yàlla mi bind doomu aadama moo leen gën xam doomu aadama la ku ci nekk cër ba nga yelloo ngay jigéen sunu borom jox na la ko boo dee góor cër ba nga yelloo sunu borom jox na la ko ñun kay ñoo dese ak sunu borom pexe ba li ñu waroo ak moom ñu def foofu nag la ñuy xaar Penda mais ko feneen. merci beaucoup monsieur